am na keneen ku ma àndaloon. ah yow ki nga àndal la mbéj ki ma àndaloon kooku la mbéj fekk man maa ngi dem. mu mbéj ko alors nu mu mën a <laughs> nekk si ba billaay wallaay barke yonent yàlla Muhammad mu mbéj waa ji yow mu mbéj waa ji pare saagale man daf ah, man da moom xelam xelam xalaat na man dab ma di ma mbéj ah, man bépp loxo bépp loxo bu ma mbéj te tooñu ma la borom pare na ci loxo boobu dootu ko jariñ àdduna ak alaaxira ah, xam nga menacé ma kenn ku ma dóor laa la wax ku ma dóor sa loxo te tooñu ma la sa loxo araam na la gis nga am na loo xam ne man duma ci egg man bugguma kenn ku may dépassé wala ku may yablu man policier bu ma taxawee fii nga ne ma jóge fi xoolal même bu dee sama trottoir dinaa fi jóge xam nga lu tax verte zone rouge bi laay respecté. ok mais xam naa ne waa ji bu solul tëni mënu ma buuseloo fa ma nekk ndax mënu ma dàquma xeex. d'accord mais tëni ba la. mais parfois nag ñoom dañuy civilu. ñoom ku ci civilu boo ma wanul sa carte mënoo maa buusel fa ma ne. d'accord loolu moom am naa loolu moom fi mu ne nii dama ci sama mesure ferme fi ma taxaw boo solee tenue naa la respecté ndax tenue ba. Mhm. boo ma wanee carte naa la respecté ndax carte bi boo ne maa ñu dem dinaa dem dinaa xam ne maa ngi ci kaaraange. loo ma wax naa ko mais nag xam ne jaru ko woon quoi. ok loo yëkkati sa loxo gaaw koo teg ci nit loolu baaxul du ñëpp la ñuy dóor parce que nit dóor na fi nit yanuy sagaram ba faw mm. nit amal mbokkam ay njariñ parce que du yaram la ñuy dóor am na yaram yoo a tookee waxuma nag man am na yaram yoo xam dañ leen a tookee kenn du ci dóor. d'accord voilà alors Abdou euh, balaa ñoo jeexal tey suba jot nañu ay rumeur comme quoi que Amadou Ba dafay quitter APR ak ak ak kii Benno Bokk Yaakaar forcément ku quitter APR di nga quitter Benno alors tey jàpp nga ni Amadou Ba c'est le moment muy quitter sax APR. waaw Amadou Ba bu quitter APR na bàyyi politique. ah parce que Amadou Ba amul base politique bu dëgër. non si. parce que mais jàppoon ni c'est le moment mu mu mu construire quoi. APR moo yor doole ji. doole ji yóbbu Amadou Ba fii APR moo ko yor te Amadou Ba bu génnee APR moom ki kese dem du am doole jooju te ah, parce que Amadou Ba dafa politique bi xew Sénégal munu ko. bi mm. xew Sénégal jamono bi APR munu ko kii ah, Amadou Ba munu ko parce que Amadou Ba homme d'état la rus na wax lu ñaaw rus na sosal gor te leer na ma ne am na eh, information yoo xam ne bu ko amee même bu dee dëgg la te bu ko waxee yàqal ay nit du ko wax politique Sénégal laajatul loolu kuy politique Sénégal da ngay mel ne Ousmane Sonko. lu la neex ngay wax da nga koy def xeexu gumba loo jekk ko rek dóoral parce que fa yow a egg du man eggu fa te kilifa mënul gaaw a tontu gis nga ñoom bi ñu jiitee réew mi ni ñu sonne seen weer wii rek ni mu tàngee ci ñoom jër parce que ah, xamul tax jër ci naka parce que critique yi ñuy jot mënuñu du tontu chaque jour mais nag diñ ah, am xaaral waaw ah, looloo tax looloo tax mu looloo tax jiite looloo tax jiite metti Macky Sall bi mu jiitee munul woon mbott mu tëb mu mu wax. Eh, mais léegi mais daan na fi génn di tontu gaay fii la génn naan ay ñaan leen. ma Macky Sall bu waxee ren. ay ku gedd sa yaay ay ak yooyu yëpp. xew na ñaata live la daan def par mois. yow mi ca daan dem ñaata yoon la soo ko daan laaj bul daan dem kat nag. yow non nga da daan dem couvrir. mais du yëpp laa daan demal. waaw man ñëpp laa daan waaw yu ci bari moom. Sonko daana na live ci weer wi ñeenti yoon seen mujj yëpp dem naa ci. génn leen ci li ngeen Sonko mooy borom weekend yi daan na live ñeenti yoon. d'accord des fois sax mu live deux fois par jour léegi mënatu ko. léegi nag soo ko dooree soo ko dooree kurpeñ tip <laughs> bu génnee tontu nga dooraat ko du mën a tontu. <laughs> loolu tax jiite métti day encaissé d'accord léegi nag moo tax ma ne Amadou Ba du mën loolu. mais mais en fait. dafa léegi nag ci Sénégal gis nga Sénégal. ci biir ci biir APR parce que ñii naan ko demal demal demal demal demal. donc Sénégal est-ce que xam nga ne ko sànq aussi. man daal li may wax sama xalaat la loolu ci Amadou Ba Sénégal. Mhm. boo mun ta fenn munoo yàq fekk góor sa set wecc nga yàq ko munoo sos munoo fi tekki dara ci politique seetal leneen. ok loolu rek nga mën a def nga tekki fi. politique mais mais am na jàpp nga ni am na mille chance ci deux mille vingt neuf moom Amadou Ba mu dellu si waat. non Amadou Ba jarul mu dellu si waat deux mille vingt neuf kon yow lan nga jàpp ne suñ ko defee. APR mën nañ mën nañ am candidat bu dàq politique Amadou parce que dañuy politique. comme kan Amadou Ba mënul politique non ñoom xëy na dinañ ko xam mais man sama gis-gis. Amadou Ba erreur bi mu def ci Sénégal mooy lim dugg ci politique. Amadou Ba du nitu politique politique Sénégal bi Amadou Ba yeneen réew. ay France ay Allemagne yeneen dëkk yi. mën nañ lay nekkee sénégalais tamit di dem dama la wax ne par exemple la exemple laa la jox tey bu fekkoon français la moom wala allemand mhm. wala yeneen dëkk yi nga xam ne ñoom du ñu topp la personne dañuy diglu nit ki ak xam-xamam di ko topp mhm. kon mën na fa tekki dara mais Sénégal toppatuñ borom xam-xam yi parce que nee naa la Sénégal buñ bëggoon a avancer duñ fal waa Pastef waaw mais lan moom est-ce que tamit moom ñi bokk ci biir partem joué wuñu ci échec parce que mu ñoom bi hmm. Macky saala tànnee Amadou Ba gis nañ ñoom ñëpp président Macky Sall moo joué ci Ba da ciy joué ah, da ciy joué eh, non da ciy joué président Macky Sall mooy principal opposant Amadou Ba ah moom mooy njëkk mooy principal opposant Amadou Ba xam nga ne ni mu waroon a taxawoo Amadou Ba ak benn Bokk Yaakaar ni ñu waroon taxawoo Amadou Ba buñ ko taxawoo woon Amadou Ba kenn waxatu ko nañ ci bàyyi caaxaan yi tamit Amadou Ba euh, kii wax na ko Abdoulaye Seydou Sow nee na bi élection yi bëgg a jub si Macky Sall dem na bay changé candidat Abdoulaye Seydou Sow du waxantu. ok avant Abdoulaye Seydou Sow di ko gis naa benn journaliste moo ko njëkk a révélé Babacar Dione. Mhm. ci veille yi nee na Macky Sall day changé candidat. waaw moo tax ma ne la est-ce que. kon moo tax man la esegam esegam Macky Sall da ciy da ciy joué. Bibo Bourgi Bibo Bourgi dégg nga mu wax ko sax même tey suba Bibo Bourgi wax na lu mel noonu. loolu daf ma jaaxal parce que aussi Amadou Ba fi mu Macky jaar ak Amadou Ba. ba pare hmm. nekk principal ennemi eh, opposant loolu xam non xam nga póotum biir la entre ñoom seen problème moom kuñ ko waxul doo ko xam parce que Abdoulaye Seydou nee na wax nañ ko ko mais du ko wax. ok kon ñoom seeni problème la. te am na lu ma bëggoon a leeral tam ci baa Jaxate ci enquête bi xaw ma lan lañ ci révélé xaw ma xaw ma di nga ci ñëwam de mooy affaire ay wii xaw ma waxi gàll kum balla puy do yooyu ñu waa Pastef bëgg a dugal suñu bopp yi. ah loolu amul. non dama dama dégg ñu ko def ko euh, euh, challenge. si fan yi di ko wax non non xam nga bu amee bu amul. Hmm. da dul bii bi quoi. d'accord xam nga mënoo nangul Ousmane 2016 ba léegi ñu koy cotiser muy lekk. Mhm. nga dem ci compte wii ba jaxate 10 millions day dara. nga naan waaw fekk naa fa ah, ay ñoom dañ doon bañ Kopar Express ma Bah Diakhaté nag du Kopar Express moo def loolu mais gis nañ affiche Kopar Express ay bonne volonté ñoo def loolu te bërki démb la waaw xaaral xam nga loolu moom bërki démb la te nee na santaadewu ko ay nit ñoo volontaire def ko loolu seen choix la waaye dafa loo xam ne du kenn mënatu koo bañ ci réew mi mooy cotiser nit mais nag baa dafa yor benn seen bu ñuy wax baatu dëgg dafa am koo xam ne dañ ko joy tudd ci transaction te ma xam lan la sékk ak baa faaw nag faaw nag mu leer dafa am ku ñuy wax débat mais yaa ngi koy lay waaw diglu rek bu ko jàppee lay yow waroo inter waroo confirmer li may wax sénégalais yi confirmer wu ma dama ne dafa mel ni danga koy lay dama lay wax seex débat débat du seex débat sax débat bi nekk si ngeen soor waaw te mu yónnee baa deux cent mille ci kontam bañ ciy tudd turam xam nga débat lu mu seeq ak baa débat da doon def mitin en tant que baatu dëgg laa baatu dëgg xam nga baa dafa yor site internet mhm. comme Sénégal set comme leeral comme ni ko yenn site yëpp di defee. Mhm. Diba soxla ko ko couvriral manifestation. Mhm. mu envoyé baa xaalis ci baatu dëkk pour mu ñëw couvriral ko baa déplacé ñaari élément yóbbu si ngeen soor man Diba moo wax ma dégg du baa moo wax ma dégg de Diba moo wax ma dégg wat transaction yi gis naa ko gis naa message yi gis naa lépp te benn yoon la. kon buñ ko fi ngandal naan débat yónnee na ko diw yónnee na ko nañuy wax li ñu ko yónnee man nee naa la du nee la ay nit ñoo ñoo koy liggéeyloo di ko fay non dañoo dajale li baa am yëpp li mu recevoir yëpp ñu jël seeni machine calculer ko tànn tur ya leen neex génne ko nañ ne diw ak diw génn la dama am lu ma la mën a wax dañoo mën a def dañoo mën a yebbeeku rek eh Babacar Touré Babacar Touré kéwéloo laay waxal nañ dem gendarmerie maanaam moom ñu def réquisition suñu numéro sama numéro 78 bi ma la jox ak bu Babacar Touré ñu xool maa ngi moom kañ lañ déggante ci mbirum Adji saar ak lan lañ ci doon wax dañoo mën a yebbeeku rek Babacar nag yebbee loolu. d'accord xam nga man am na loo xam ne bugguma ci waa Pastef ñooy soppi ji koy nit man mën naa ànd ak nit ñu rey nit. mais boo ko waxul du ma ko waaye comme dañoo toll ci yebbeeku mhm. lu waaye xamal borom na ko wax nañ def réquisition sama numéro ak Babacar Touré laa wax dama ko interpellé direct de lan la doon waxanteeg man Abdou Nguer ak moom lañ doon waxante lan lan na ko yebbi ñëpp xam ko. waaw d'accord loolu voilà dañuy mën a yebbee peut-être après Babacar Touré dina ci tontu. donc jeexal la mais naa la ma bàyyi la nga tàggatoo. waaw maa ngi leen di sant émission bi neex na ci <laughs> koy présenté. Uh-huh. ni nga ñëwee rek noonu laay taxawee. jeex na parce ma laaj lu ñuy waxtaane xam nga laajuma lan la waxtaane yéen mooy si man foo ñëw ma wax ci li ma xam neex naa defal émission sama affaire métti te jigéen ñi laa faral <laughs> sant naa ñëpp gërëm ñëpp di leen ñaanal jàmm di ñaan kër gi yàlla def fi barke na ma ko doon ñaan